seen site Dakar Matin moo leen di may seen revue de presse ak Pape Alé Niang tàmbali yir yéenekaay yi ak coowul Karim Wade daanaka yéenekaay yëpp moom la ñu xëyee tey jii lu tax dañoo niinal li nga xam ne moo di inscription ci liste électorale yi maanaam daal Karim Wade binduwul ndax nag ministre de l'intérieur daf ko rejeté li nga xam ne moo di bindu ba mu def ci liste électorale yi yéenekaay yëpp na xëyee ko yéenekaay bi quotidien nag recalé nañ Karim wadd de yéenekaay bi di enquête na Karim wadd dem na sa touche ba bokkatul yéenekaay bi di laas na Karim Wade rejeté nañ ko yéenekaay bii di Vox Populi na Karim Wade éliminé nañ ko ci élection présidentielle yu ñu jëm yéenekaay bi nga xam ne moo di l'observateur na fichier Karim la ñu écrasé ci boppam Karim Wade nag recalé nañ ko waaye waa PDS na mukk déedéet du ñu seetaan li benn yoon dañoo fas yéene defanteeg nguuru Macky Sall loolu la ñu yéene kaay Les xamal tey jii ñu jàpp leen yéene kaay Karim Wade te jii moo ci bës bës bu mat sëkk lu tax nag ñu rejeté li nga xam ne moo di bindoom yéenekaay bi nga xam ne moo di le quotidien daf ñoo xamal ne Bernard Casimir Cissé bi doon directeur de la communication bu direction générale des élections nee na dañu sukkandiku ci article L31. bi nga xam ne dañ ne képp koo xam ne dañ la teg ay daan ci wàllum escroquerie ci wàllum sàcc ci wàllum vol lu ne lim na ko daal moom di ko benn bennal ci loolu la ñu sukkandiku ngir éliminer ki nga xam ne moo di Karim wadd waaye yéenekaay bi nga xam ne moo di Les Échos na Karim Wade nag mën naa dem ñaxtu ji ci fi nga xam ne fa la bindoo woon di ambassade bu Koweït am na nag ñaari weer ngir def lu ñu mel PDS ñoom nee na duñ xaar ñaari weer tey la ñuy tàmbali def benn jeno ak taskatu xibaar yi yéenekaay bi nga xam ne moo di l'observateur ne duñ ci am dañuy saisir cour d'appel ngir ñu delloo Karim Wade ay droit am te nag dañoo fas yéene laaleeg Macky Sall ba mu saf sap yéenekaay bi di enquête ne waaw isa <laughs> Karim Wade ay droit civil am ak politique sax duñ ko teggi teg fële ginnaaw daan ñu ko daanoon ci wàllu CREI yi beneen candidat ci élection présidentielle bu nar a éliminé kan la Khalifa Sall yéenekaay yëpp na xëy wax ñu benn waax ne xalifa Sall ci sursis la nekk bés bu ñu dëggalee li nga xam ne moo di condamnation ba ñu waxoon mooy juróomi at yi dañ koy génne moom it ci la si Ndiogou Sarr di professeur en droit ci biir yéenekaay bii di enquête ne ginnaaw dogalu cour de justice bu d'appel dafa war a bàyyi Khalifa Sall mu ñibbi. cay mbokkam yéenekaay bi du Le de na douane la mu bëggoon a def teg na ko ci suuf ne day ubbi ay bureau ci poste frontalier yi bàyyi na ko yéenekaay bi Les Échos lu maanaam it ba des daal réew mi ci wàllu koom-koom ñi ngi ci jafe-jafe yu tar FMI bi ko jàngat xool ko nee na tiit na lool ci finance réew mi nañ ko yore ñi nga xam ne ñu problème mu koppar kay ñan la mooy jigéen ñi bokk ci Benno Bokk Yaakaar ñoom ci boppam yéen kay bi Les Échos na yoon ca Thiès di gundaat ba daxal ma daax def soirée céréale garal bu réeréy di jaaba jonge bu mu neex ba mu saf sàpp loolu la ñu wax génn fa xaalis pasar pasare nit ñi nag mere leen ci lool ndax ndóol gu tar gi nga xam ne mi ngi ci réew mi ci biir yéen kaay bi laas xode si càmm du wax moom ay pexeem ngir redressé réewum Sénégal ndax dafa jàpp ne mi ngi ci guut grève de la faim yu ñuy tudd ci cantakon ya ca Thiès tax na ONG yëkkati kàddu na état Sénégal faw nag six ans ngi nii mu àtte ñii wala moo xam ne mu taxawee ak ñoom waaye prison bu Thiès ñoom ñu ngay miim na benn kun bugg fi woon a xaru mbooro moom lu doy waar la ñu gis yéen kaay bi laas moo ñu ko yëgal néewu kenn ku jigéen ku doon jaay jën lañu fekk ñu suul ko ci toolu ki doonoon député Cheikh Tidiane Ndiaye ba tax ñu ngi fay ubbi l'enquête juróom-ñaari sénégalais ñoo bëggoon a rëcc daw na dañuy def immigration ci mondial bi waaye police russe da leen jàpp enquête moo ñu ko yëgal ñu wax ci coupe du monde bi yéen kaay bi di laas ne lions yi ñoo ñàkk daw fas ñoom 15 millions lañ naroon am ku ne bu ñu qualifié woon huitième de finale rëcc na leen nii rek yéen kaay bi l'observateur na loolu kay bay wéy na mbuus nañu wax leneen li ñu war a wax moo di ginnaaw campagne bi ñu def ci Russie am na ay laaj yoo xam ne faw moom tontu nañu géré woon tañeer yi ak li nga xam ne làmbaatu bi ci wàllu tactique foog ñu xool ko bu baax a baax amit yenn gaynde yoo xam ne faaw ñu dem retraite faaw nag ñu def bilan loolu ñu yéen a kàddu observateur xamal tey jii ci ngeen jëf jërëjëf ñu ngi leen di déglu si wàllu seen site karmatin.com incha allah